ñu waxtaanee leneen euh, débat bu wula bu amoon ci diggante na Diop ak El Malick lépp waralu ko du kenn ku dul Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii ñu ngi jéem a déformer ay waxam euh, kii di El Malick taxaw daal di koy défendre comme ni mu waree ñu xool vidéo bi dellusi. en deux mille vingt deux moo doon dem leen jël Macky Sall Macky Sall nañ ko def comme Samuel Doe. ak ko xam histoire Samuel Doe bu bàyyi. xanaa yaa defar vidéo bi. ban vidéo ban. bi may wax sànq. ban ban ndax Macky Sall la wax na Ousmane Sonko loolu la wax. la vidéo tronquée la. naan nañ ko def comme Samuel Doe. comme Samuel Doe waxul loolu. l'honnêteté intellectuelle l'honnêteté intellectuelle rek. l'honnêteté t'impose à ne pas tronquer les choses et à dire la phrase quand tu la condition. la conditionnalité. la tu biaises tout et c'est ce que tu as fait. non la la nga tuddee condition. taxaw meeting mu pur. Amadou Bari. waaw mooy la lu mu wax. nga wax ni. waaw. na bàyyi opposition yi muy attaqué. waaw xam ngeen ne jeunesse bi fi toog fii ku leen joxoon ay ngàndaay ñu wàcc xeex ndax am nañu doole. waaw. teg condition su euh, su euh, et que su continuer di attaquer euh, opposition bi di peuple bi mën nañ dem génne ko def ko comme ni ñu def Samuel doo tu poses une condition nga ñëw nga ne nañ génne Macky Sall def ko Samuel Doe c'est comme si Macky Sall quand il disait on va le déloger au palais il avait posé une condition. Samuel Doe bi ko waxee kon. Bari. du Kër Massar Samuel Doe. non yaa ngi juum. Ah. xam nga mooy li ma la wax rek seen montage yi da ngeen nëbër ci seen ma ñëw fu mu ko waxee sax c'est pas trop important dama doon laajte rek parce que man mën naa jàpp ne sax. Kër Masar ba conseil ba fekk na géej waay après dinaa ko vérifier. waay dégg non la. dinaa ko vérifier même bu dee géej waay léegi. dama ne te la wax te ma yokkal la ci beneen affaire. dee leen wax li muy wax tamit. Hmm, waaw moom moo taxaw mu ni malgré li ñu ma def yëpp baal naa ñëpp. déglul de déglul baax baal naa ñëpp. waaw. limite tendre la main au président Macky Sall. ko appel. ne ko mu organiser li muy organiser pare dem te président Ousmane Sonko ñi ñu ko jege xam nañ ko xam nañu ne xolam du kuy fayantu loolu la ko yàlla bindee ñu ko jege ñëpp xam nañ ko moo tax non attention il faut pas il faut il faut pas confondre les choses ñun amuñu justice amuñu nervi amuñu dara xam nga lan la ñu am suñu jëm jërëjëf mi ngi noonu alaaji dégg nga euh, Thierno ni mu déformé euh, propos Ousmane Sonko yi mais El Malick def na li ko wax muy corriger ko comme ni mu waree. nga xam nga Thierno bi ko El Malick di euh, jubbanti. Mhm. dafa teel a nangu xam nga teel a nangu moom day yombali. duma waaw léegi dem na sax ba ne moom moom moo doon wax de waaye dafa dem ba caag nee na da doon laajte rek. donc te dafa ñëwoon pour joxe ab xibaar. donc loolu lii nag dafa dal usmaan Sonko ci yu bari ay nit dagg ay waxam manipuler wala ay nit jël ay waxam dugal ko ci beneen contexte boo xam ne bokkutoon nag bi muy wax loolu lépp ngir diaboliser ki nga xamante ni kii mooy nit ki loolu nag baaxut parce que nit moom boo demee ak loo ko contre contre boo demee ba di wax ay waxam rek wax ko na nga xamante ni bi noonu la ko waxee bu dee xamoo ko wóoru la. te nga war koo wax foo xam ne fii ay junniy junniy doomu aadama dañ lay déglu te buñ la dégloo mën nañ laa gëm ci li nga xam ne moom ngay wax donc del mesurer li ngay wax wala la ngay wax na la wóor ne la ki ngay waxal lii la wax ñëpp jël nañ fi kàddu googu nga xamante ni moom lañ doon wax ku dee sa yaay juraat loolu nga xam ne feneen la ko jëlale jëmale woon ba ne leen dee sax du ci am mhm. maanaam ni xale yi di wax naan ku dee sa yaay juraat mhm. te sax dee du ci am ñu dagg loolu daal di indi ku dee sa yaay juraat ba noppi dëkkale ko yëpp ba tey ñu bari ñoo xamante ni dañuy jéem a diaboliser Ousmane Sonko foofu la ñuy jaar di ko jéem a diaboliser mm-hmm. mais nit ki day dem ba yëg ni kii kat li ma koy waxal du lii mu fi wax naan léegi almet bi nga xam ne moom laa koy yoroon kii naa ko léegi nag bu mu yoree réew mi màggal dootul am kii dootul am maanaam muy nettali ñu jëlaat wax jooju mm-hmm. jël ko ko daan lii la wax mm-hmm. nga xamante bi euh, Euh, yàgg nañ ko def lu ni mel mais nag lépp luñ ko mës a defit ci lu mel noonu euh, yokk na ko aussi tamit parensaay ay soppe ay nit dinañ dem ba dégg gëmoon leen ba taxoon ne loolu doo nga tax ñu bañ ko dem ba découvrir ni loolu du dëgg ñu wëlbatiku daal ne ah li nekkate dañ ko ko sosaloon léegi ña doon manipuler parensaay yàgg-yàgg avec le temps dañuy dem ba ñoom ñooy perte li nga xam ne mooy kii li El nag def bon am na solo euh, delloo siwaat ko waaye tamit sa tamit bon teel naa accepté li nga xam ni euh, mooy dëgg gi mm. waaw am na ñoo xamante ni nag bu doon ñoom la ci palaato mm. du ñu accepté mukk dëgg gi mm. maanaam dañuy gën a xuus mm-hmm. waaw le fait que mu accepté tamit loolu lu baax la nga xam ni nga nangu ni juum nga li nga wax du nii loolu aussi tamit euh, baax na waaw